tudd Macky Sall muy le meilleur président du Sénégal ku wetti gis bokku ci monsieur le président de la république yaay sunu fierté dañ la naw dañu ànd ak yow te di mu dellu ginnaaw monsieur le président ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ziar di la félicité di la nuyu fii ci département de Fatick li ko jar moo ko jar ndax jigéen ñu baax ñi ànd ak man jóge Dakar kenn ku ci nekk yaa ko tee tëdd yaa ko tee nelaw ci jàppale la ci liggéey bi ak nekk sa ginnaaw di la jàppale waaye rawatina ak waa Fatick su ma nuyoo son excellence monsieur le président de la république damay nuyu sama xarit Adja Mara Faye Sall di keneen président de la République fii di dëkkam mu jëf ci lu rëy ànd ak jigéen ñi di boobu ba léegi jàppale borom këram madame la première dame maa ngi koy di ko sant bu baax di ko gër di nuyu nag ñi fi teew ñëpp di ko ci nuyu le premier magistrat de la ville de Fatick mon collègue Ami Matar Ba tey nag moo dafa merci maar laay wax ci ñi nga xam ne depuis six jours maa ngi ci région de Fatick ak région de Kaolack sur instruction de monsieur le président de république seen doom mu ne man damaa bëgg sama gouvernement ñi fi nekk ñu wàcc ci askan wi seeti leen koo seet ay jafe-jafe lépp luñ ci mën apporter comme solution ou contribution indi ko ci ma déménage sama laa déménagé tous les projets et programmes tous les directeurs ñëpp laa mobilisé seen intervention yi def ci commune bi ak ci département yi ak ci région yi ñu wan ko askan bi ma ci sant di leen ci félicité du ma lim kenn bàyyi kenn képp koo xam ne am nga programme am projet commencé ko organisation de féminine yi ci fonds yi palam ci PADES ci képp koo xam ne ko def EJ koo xam ne projet nga rek ñëw nga ànd ak man tournée pendant six jours maa leen sant bu baax di leen remercier di leen sant nag bu baax délégation bi mu a jugee Dakar su ma limee dama koy teg déjà ci ki nga xam ne kii moo jiitu ci délégation bi mooy Mbacke Ndiakhoso parce que mooy au conseil des collectivités territoriales. di nuyu madame la présidente Aïda Sougou ma sœur di ko remercier di ko sant. di nuyu Guèye Mbacke Seck moom tamit booba léegi mi am délégation di ko di ko gërëm di nuyu Mame Fall conseil spécial du président de la République di beral nuyoo sama sœur madame la vice la deuxième teste de l'Assemblée nationale ma sœur Awa Niang moom tamit léegi di sant nag di gërëm bu baax ci ñoo xam ne ñii mënuma leen a fay gisati Ndiaye Ngom sama sœur mu bëgg ma lool jàpp ma lool ma taxaw mu taxaw sama wet di wax ci lu man lu baax bu ma teewee ak bu ma teew mu jàmbaar président nag ma seede ne fii ci Fatick dama dégg madame la ministre ngay dem Fatick ba booy sama noppi ndax njaay bopp xam naa ñi fa dëkk ñëpp xam naa ndem ami lay xam naa astu dama sonn ci waxu waa Fatick ak njaay bopp loolu dama koy seede fii ci askan bi toog ne ku ma gën a sonal ku mu nga Fatick moom ci la bokk def na ba dama dama lay booleem président dama lay boole président parce que dama ko dëkkam te mooy président de la République man ko wax nga dëgg kon yaay moom waa Fatick mu ñu laa fay. di gërëm xat jàmm Seck moom tam la même chose muy jàmbaare président moom tamit di ko andi ko jàppale moom tamit bu baax am fulla am fayda di liggéeye liggéeyam te bu mu liggéeyee na ci boole am activité am ci engagement sawar si li muy def xat jàmm Seck su ma limee damay juum waaye sant naa ñëpp sant nag particulièrement jigéenu Fatick parce que lii moom yombul midi gi suba nga toog ba vingt heures bëgg a jot di xaar sa ministre waaye lu ko jar moo ko jar parce que président moom a yónni ci ñëw nag seet si jigéen ñi jàpp jigéen ñi seen place seen am ci réew mi président xam ko bu baax di ci liggéey liggéey bu am solo mais plus de la moitié de la population sont des femmes Sénégal nekk un pays émergent il faut que jigéen ñi teg leen en première ligne jàppale leen renforcer autonomisation économique parce que bu ñu amee autonomie yaakaar naa jigéen ñi seen taxawaay dafay gën a dëgër. foofu laay jàllee nag ci waxu coow réew mi xam nga président dafa am ñu garant Sénégal ndax bilan ci li mu def ci liggéey di liggéey lu bari di wax tuuti kooku mooy président Macky Sall président Macky Sall gëm jigéen ñi xam ne jigéen ñi dañoo war a renforcer mu jox ma ministère tudd ministère de la femme de la famille et du genre et de la protection des enfants ñu koy doxal président jël jigéen ñi teg leen en première ligne l'autonomisation économique des femmes est placée en axe prioritaire dans le plan Sénégal émergent loolu moo jigéen ñi seen xëy seen koom-koom dama ko sama kanam loolu président de la Macky Sall loolu la bëgg ci réewu Sénégal ñu comprendre nag loolu nag ci biir ma ministère mooy dañoo bëgg ba fexe ne jigéen ñi ak góor ñi ci réew mi lépp lu répartition free croissance góor wala jigéen dañ cee war a am yaa wàll te wàll bu ci am nag góor ngeen ëppal dañu war a fexe ba renforcer jigéen ñi ba ñu dab góor ñi loolu mooy genre wax ji nag lu muy bari bari bari rek président tëj na débat bu yàgg clôturé na ko parce que nee na moom tànk mu ne président de du Sénégal lépp loo xam dafay dafay tëdd ci réew mi te loo xam ne sagalul l'islam bi dañ ko xaar ci keneen waaye doon ci président daal kon le débat est déjà trop waaye nag comme ñoo xam ne nga am seen agenda di ko déroulé ñu ko déroulé bu ñu ubbee bii paase boo paase xam ne mënatuñ cee tëj ñu tëj doo ci ubbi beneen xeex nañ fi ne président day xeex daara yi président que madame le ministre maa bëgg a renforcer daara yi fu daara na Sénégal na ko fekk na nga ko indi jàppale na nga ko indi appui parce que jàpp naa daara yi seen contribution bi am ci réew mi éducation yi kenn mënu leen a fay ma ñëw fii département bi ci région de Kaolack et Fatick ku fi nekk daara rek naa appui jox la loolu président moo ko bëgg mu def na ci réew mi loo xam ne benn nag président mosu koo def ci diine ji ak ci l'islam ak chef religieux yi kooku mooy président ji fonk l'islam bi Sénégal président de la république Sénégal yebu ko étranger yebu ko benn partenaire yebul président banaa ko dama agenda LGBT di ko def ci réew mi tëj na ko débat boobu yàgg nee na man mane président man Macky Sall ñaara juru juma may jullit akkan man benn nit ak koo mën a doon boo amee agenda bu dul agenda l'islam ak diine lu koy enferme pour ñëw ci man bu egsi man tëj naa te kenn yebu ma banaa ma defal loolu kooku mooy président Macky Sall ci réew sant nag bu baax di gërëm di wax ne lii la suñu liggéey ñu lañuy liggéey liggéey mooy dem seet askan wi jàppale leen évaluer li nga defoon foo i toll ndax doon na dolli nga dolli kooku mooy président Macky Sall Sénégal ci yar beeg tey bi jàppale jigéen ñi du ñu liggéey mu leen di fay loolu mooy pour sécurité familiale ku ko def pour le président doo liggéey mu lay fay par weer loolu mooy pour sécurité familiale pour jàppale askan wi si président loolu dox te jour quatre cent cinquante milliards de francs CFA ku def fekkoon nag Prodac a ngi fi woon ANPEJ ngi fi woon di ASP yaa ngi fi woon lépp ngi fi woon présenté ci liggéey mu renforcer waat ko xam ne ndaw ñi nooy l'avenir de ce pays te 70 pour cent de la de population est jeune mu ne damay renforcer les projets de programme destinés aux jeunes bëgg a 65 000 emplois président day liggéey boolewul ay wax ak dara te ñun nag ñu ndaw ci lii la ñuy dox rek nag waaw ñu xëyee ñu xool ci jafe am